Assalamualaikum warahmatullah mang len di nuyu te di len ziar bu baax baax man nak ab xale bu jigen la bo xamni danaka mang ci sama ay trentaine mbokk yi def sama boroom keur tukki ma tok nak di ko muñal waye mbokk yi bi fi don jang amoon na benn xarit boo xam ni dañu bokkoon benn école bu doon defee formation yala def moom mu nekkoon koo xam ni seen am-am taxa ko woon demee noonu mais comme à chaque fois bu nu mësaan nekk dafa ma daan expliquer seen vie nu ñuy dundee mu amoon benn yërmande ci moom dañ ko jàppale dañ ko jàppale éthiquement mais moralement. daan yëkkati sama alal daan ko jox parfois mu ñu expliquer ma jooy ni ma seen kër tey dara am fa mu yëkkati dara ni ko Orange ma ne ko sa yaay mu jox xaalis bi yaayam demoon na ba yaayam ni ko sa xarit bi lay dimbali ba mu bëgg nga indi ma ko fii présenté ma ko parce que kooku nit ku baax la benn jour benn dimanche ma dem seen kër yendu fa waxtaan ak yaayam mu nekk nag ay nit yu baax ay nit yu yiw nag yàlla dogal kooku noonu ñu dem ba ku ci nekk la nga doon def ci sa formation jeex na ku nekk dem benn instant nag ñu ñu ñu ñu ñu ku ci nekk ñàkk sa contact moroom dégganteetunu gisanteetunu dama doon toog nag di ko jàmbat parce que dama doon toog benn instant sama xel da doon nekk ci moom ak vie bi ñu doon dund ma ko doon laaj ndax léegi stable nañ ou mais dommage que ni on s'est perdu de vue gisatuñu dégganteetuñu presque le mat ay 3 ans moo ngi nii mais mbokk yi nag fu nekk nag def naa ko fo recherche dugg sax ci Facebook pour mën am touram mais xam nga rek gars yi li ñuy bind ci seen Facebook ak li ñuy tudd du bokk sama xel nak jogul ben yoon ci xale bu jigéen boobu man daal dama tok ba yagg sama ay xarit di may woo ci dëkk boobu nga xam ne foofu la sama borom kër nekk di may wax lan moo tax mënoo ñëw si dëkk bi fekk sa jëkkër ma naan leen ah liggéey bi rek ñu naan ma ñëwal même bu dee danga fiy def deux mois nga ñibbi wàcc mais sunu su rek sama xarit yi ñu may ñu ngi teg pression ñu ngi may bousculer pour ma ñëw mais kenn nangu ma wax li xew mbokk yi heure buñ ma woowee rek ñëwal lañ may wax ñëwal ñëwal ma naan wala waaw dinaa ñëw dinaa ñëw su ma amee buntu rek dinaa ñëw am na sax sama yeneen xarit yoo xam ne sax dañ may woo di may wax naa ñëw mais instant boobu noonu kenn bëggu moon wax li xew ndax amoon bi nga xam ne amoon naa ko sama diggante sama jëkkër benn instant sama borom kër dañ daan wootante ay appel vidéo guddi gi mais dem naa ba suma ko dee woo dootuma décroché ti moom daal moy toog ba mu neex ko rek mu wootee bon dama doon wax naan xëy na liggéey bi la wala temps bi la wala genre mosuma xalaat mbokk yi am sama benn xarit bu ma ni léegi nag caaxeen faxe dëgg des liñ lay nëbb foog ñu wax la ko sa borom ko daf fi takk soxna ma ne leen ah bon ah moom de waxuma ko mais comme ça rek samay xarit ñooy wax ba tey ma guddi gi may continuer di insister di wo sama borom kër parce que nag seytaane waxul deug way yak na xel su ma ko dee appel vidéo du nango décrocher benn jour ma ni il est temps nañ wax lan moy sama problème ak yow ba légui su la dee woo appel vidéo doomu wuyu bon benn jour mu avoué ma xamal ma ne man ak carrément mosuma ko won bëgg wax parce que sama ak yow numu démé ni nga doon contribuer ci sama vie ni nga doon sonné ci man ni nga ma muñulee moo tax ñemewu loon wax ñi dama takk soxna ci dëkk bi mbokk yi foofu mel ni dañ ma tek asaman ndax poids bi ma tek atunatu mako mani ko lan moo tax nga takk soxna waxoo ko ma ñëmé wu mako won mais ki ma tek nit ku bax la expliquer wax wax wax wax ñu tok dawal 2 mois li nekk ci sama xol ma ko wax mere naa ko mais bëgg naa ko benn jour mu ne ma dama lay paas soxna si nga xamanteek moom jigéen bu nekk jigéen la ma décroché téléphone bi mbokk yi mu jox ma voix bi nga xam ni ah, dama ko xam mu ne ko yow fan nga dëkk mu expliqué ma wax ma wax ma turam mbokk yi muy sama xarit bi nga xam ni mooy ku ma doon wër ay jamono te mu defandoo woon ak moom formation te daan ko dimbali kooku la sama boroom kër takk ñoom ñaar xamantewuñu wuñu adduna moo leen boole jamono moo leen boole dox nañ ba gisante bëggante mu takk xale bu jigéen boobu mbokk yi keroog bi ma xale bu jigéen bi envoyé ay photo ma woo ko appel vidéo muy même xarit bi nga xam ne moom laa doon defandool formation boobu yi keroog boobu am naa lu ma metti xam naa ni nag moom defu ci dara parce que nekkul ni moom moo takk sëy bi nekkul ni dafa xam sama boroom kër moo tax mu sëy ak moom daanaa waxtaan ak moom ci sama boroom kër nag ci yooyu jamono mais mosuma ko wax turam mosuñu xam nga mosuñu sor ci yenn yi ci sama borom kër mbokk yi naka laa war a def lan mooy seen xalaat ci lii nga xam ne moom laa leen expliquer ngeen baal ma nag ci audio bi tax dafa yàgg waaye xol bu feesee day tuuru te xol du ëmb di ko bés jàppale leen ma சிலி லங்லா வருது